dal leen ak jàmm mbokku internet yi Dame Amar doomu milliardaire bi yoon teg ko loxo ngir mbirum jëfandikoo drogue ak li ko tax a fës di faatub soxna si lee di Hiba Thiam waaye mel na ni daanaka loolu lee du guleet ndax Dame Amar yàgg na def lu ni mel waaye li taxoon ba ñu bëri daawuñu ko yëg mooy ne ki jege ñaalem saay su ne dañ doon fexe di nëpp nëppal mbir mi di ko protéger jëf ak doxalin bu mel nii ci moom daanaka am na fi amaat fi jaar jàllaat fi déedéet sax dañuy ñàkkal ñàkkal fayda teg bi nga xamante ne yoon jot na ko teg loxo ci mbir mi waaye rek dañu bëgg a fàttali ne lii bu mu tax ñu yaakaar ne tey la mës a xew ndax ki lee di daam amaar yàgg na jëfandikoo drogue ba na na dacee lang mënatu koo bàyyi ci lu yàggul dara fan wii ñu weesu ñun ñoo ko yëgandoo ci ab soirée privée bu mu organisé woon ngir ànd ci ak ay xaritam pour dem éclaté wu maanaam jëfandikoo drogue foo def lu leen neex waaye boobule soirée daanaka ni mu mujjee neexul benn muy faatu kile di Iba Thiam yàgg jëfandikoo dorog boobulee moo ko jural mujj gi mu lanca moom daam amaar dem na ba mujj gi mënatul bàyyi dorog bi jamono ji ñi ko xam dëgg-dëgg mën nañu xalaat ne kile di Pape Madior Amar ñu gën koo xam ci Papi Amar nekk frère ci Dame Amar fu mu toll nii mën nañu wax ne yaramam dina sedd tuuti ndax moom moomulee sonn na te tayyi na jamono june mi ngi xët-xëti topp ci ginnaaw Dame Amar ngir fexe ba tabax fépp foo xamante ne jot na ko toj ndax ci toj-toj la dëkkoon dëgg-dëgg li doy na waar ba tax ñenn ñi di laaj ndax lile nattu la wala am musiba bu wàcc ci kaw waa ji nga xamante ne ñëpp a ko nawloo woon te bëggu ko muy nit ku baax muy Amet Amar mawoon doonoon capitaine industrie nekkoon homme d'affaires bu mag te itam moomoon lile di Enema Sanders ñenn ñi jàpp nañ ne lile lenn waralu ko lu dul ne ki lay di Dame Amar ak yenn ci ay frères dañoo yaroo seen sago ndax dañoo juddoo fekk seen ndey seeni seen baay gàñña ba tax rek lu ñu bëgg am ko fu ñu bëgg dem dem fa maanaam nekk li tubaab di woowee enfant gâté papi Amar mii di frère ci Dame Amar sax daanaka jot na jar ci mbir yu ni mel waaye nag yàlla suturaal na ko ba mu dëpp topp yoonu nit ku baax ba tax ñu bari naw ko boobu boobulee defar bu mu defaraat jikkoom moo ko jural bàyyam woolu ko ba sax mu mujj doon PDG bu NMA Sanders waaye kiilee di Dame Amar moom daanaka dakkalul benn yoon ay jëfelinam saa su ne rek mi ngi ci ay toj yu koy jural léeg ay problème waaye li ko daan may muy génn ci yooyu les problème saay su ne mooy kilee di baayam mi fi nekkoon di Ahmed Amar doon ko protéger lool te doon ko dimbali saay soo xamante ne dugg na ci guuta waaye tey ji nga xamante ne nekkatu fi te yàlla na ko yàlla yërëm kilee di Dame Amar mel na ni mboolem jëf bu mu mës a jëf boo xamante ne jot na ci génn ak bii mu mujjee nga xamante ne moo ko tax a siiw mel na ni lépp dafa nar a àndandoo daanu ci kawam moom Dame mi nga xamante ne ci ay toj rek la dëkk suñu fàttalikoo bu baax ci fan yi nga xamante ne moom moo topp ci génnu àdduna ak papaam ji di Ahmed Amar kile di Dame amaar ci ab boîte de nuit la dem yàq fa lu toll ci 3 millions ci ne rek nee na dafay naan sampaay ba tey itam ci fàttali jotoon nañ ko fi joxoñ baaraamu tuuma ci ab viol boo xamante ne defoon na ko ci benn esthéticienne waaye coow loolu itam dañ ko mujj nëpp nëppal ci suuf mu naax saay mel na ni ci mim réew Dame Amar bariwu fi woy rafet li ko ñu bari di jëwee nag mooy ne tàmm gu mu tàmm di jël ay jigéen di leen yóbbu ci ay hôtel di leen doroge ànd ak ñoom ca la ko neex ba noppi bàyyi leen fa ak li nga xamante ne moom mooy facture ya bi ci mujj mooy xale bu jigéen bi mu yóbbu woon ci hôtel Pullman ñoom ñaar ci jëfandikoo drogue waaye xale bu jigéen bi la mu mujjee jël ci drogue dafa bëri bari boo xamante ne daanaka ba muy génn ca hôtel ba dafa mel nii na ko ndeyam juree woon génn ca hôtel ba solul benn yére di dox ndax booba amatul woon fan la nekk ndax li mu jëfandikoo woon ci dorog dafa bari lool ba tey dam amaar oto ba nga xamante ne moom lay faral di dawal ca biir sàngara ak dorog daanaka mel na ni du fa gaj lii lépp ngir wan leen rek ni gorob Youssou Ndour bi di borom kër ci nday Soxna nduur bariwul ci mim réew ay ndaw yu ko def royukaay na am sax liñ koy natable mooy ndaw soo xamante ne dafa yàqu dundam ci jëfandikoo lii di sinébar tey ji yoon tegaat na ko loxo ñuy laaj ba xam fan la wante di mujjee ki gëtam ndax bile yoone kile di Dame Amar dina rëcc ci loxo yi yoon mel na ni sax jamono ji am na ay pression yu ñuy teg ci way attekat yi ngir ñu bàyyi doomo milliardaire bi di Dame Amar waaye njort nañ ne bile yoon justice am na taxawaay boo xamante ne kile di Dame Amar du mëcc ci ay daan jërë ngeen jëf dañ di kàtt ak yenn ci yeneen i xibaar kàtt ak